ñëpp daal di ci euh, teg euh, seen ay gët mais aussi euh, guuta bi nga xam ne Sénégal nekk na ci yow lan nga ci gis. guuta gi daal nga gis ci guuta gi. ndax gi daal li ñu ciy génne waxoon naa ko ci njëlbeen bi mhm. quoi. Macky Sall li ko desee bareetul. samp na samp na candidat am. Mhm. na ko samp wut lu mu am mais bu mu faaxee foqate élection yi. Mhm. na libéré ministre de l' intérieur bi moom nee na du ko du ma ko mës a def parce xam na ni su ko defee perte élection yi. te gis nga booy yi man man révélation yi may am xolal wallahi gis naa ay xale yoo xam ne dama sama borom moo ma leen wan. est-ce que xam nga bi ma leen gisee lu doon def yooyu xale. lu doon def. dañu dañu jam seen loxo ba mu tot ba mu génnee du sang. ba mu toq deret ñoom ñëpp ñu jaxasee ndoo leur sang. Mm-hmm. pacte la ñu signé ñoom xale yi am na pacte bu ñuy signé. loolu war nan ma ko ay xale yu dajaloo. ils se sont fait mal dañu dagg seen yaram ba mu naaj ñu dajale seen dërët jaxase ko. Hmm. pactiser ay xale lañu duñu ay du nu ay fa ay citoyens sénégalais ay xale lañu. ils son très déterminés te ñu ngi ci réew mi di toggaat loo xam ni bis bu takkaatee fii bark yàlla li li may wax nii Macky Sall na dimbali nit ñi bañ a confisquer. na organise ay élection yu transparent mën na ko gañee mais mun na ko gañee mais saa bu gañee réew mi Macky Sall bis bu gañee réew mi ñun ñu abal ko réew mi ñu xam ne sénégalais yi lii leen bëgg su ko defee moom mu jël réew mi géré ko nit ñi dem seen yoon wuti feneen fu ñu dëkk mhm. mais quand bëgg yow amoo majorité ba pare bëgg koo confisquer non je te le jure su bis bu ko jaralee bakkanam ñun de jaral nañu bakkan nopp ki bët ak lu ne waaw euh, parce que nag ñun danoo am droit duñu ci un pays démocratique on non man sama papa da cee xeex ba benn rein la dunde li des ci dundam. ñaari rein moom la nit di am mais moom benn rein la mës danoo opéré benn rein bi dindi ko sànni parce que dañ ko joxul ndox en prison ba benn rein bi yàqu su mon père ñàkk na benn rein ngir man. man léegi je ne a pas me battre pour mon enfant. pour que ressources yi ko yàlla baaxee ci réew mi fii suñu xale yi euh, mën a tekki te deux éléments yi des xaw ma ndax fu ci émission bi toll mais yitteel na ma trop. voilà ñëw ci muy deux euh, éléments ñëw li des ci temps bi bëriwul. loo bëreetul. li li des ci temps bi am na ñaar ñoo xam ni muy Tahirou Sarr. ak euh, oustaz Mor. Mor Modou Fall bu TFM su ma dee naa commencé ci oustaz Modou Fall. ok gis nga oustaz Modou Fall. Mhm. Youssou nduur Ndour na tey na micro Sénégal cinquante ans te musul te musul tooñ réew mi. Guléeb Youssou Ndour mm. tooñ na réew mi. nu ko nu mu xam nga nu mu tooñee réew mi. Mhm. fekk benn lan mooy oustaz même man mën nan ma wooyee oustaz man sama koñ sama fekk oustaz lan may wooyee te xam naa ni du ma donte alxuraan maa ngi koy jàng trente ans. man bi may jàng alxuraan fekk na ma bi may fer iji kenn jàngalu ma alxuraan jàngum alxuraan du question tu es un arabisant mhm. làkki arab rek ñu ne yow dégg nga alxuraan alxuraan léegi mi ngi ci dans toutes les langues livre man téere Ibn Kasir laay laa toll nii moom laay jàng tafsiru Ibn Kasir 60000 laa ko jëndee. ok tafsiru Kasir ñoom xam nañu luy tafsiru Ibn Kasir. Mhm. da ngay dem pharmacie ñu jaay la garab notice bi loo ciy gis da nga ciy gis version française version arabe version anglaise. maanaa gi lépp benn la. mais jàpp arabisants yi rek ñoo war a wax ci alxuraan bi te xamuñu dara oustaz euh, Modou Fall xamul dara. Ah. xamul dara. xamul dara ay xale yi li mu mën xale yu ndaw yi mën nañ ko xale bu ndaw boo fi tariloo Bakara ba naa si mu tari ko. tari alxuraan rek dafa tax nga naan oustaz lu mu la laaj nga tontu ci. te et puis man Babacar Diagne fan la Babacar Diagne nekk CNRA. Mhm. mais oustaz Modou Fall ngay. Euh, mais tooñ na réew mi. léegi Oustaz Modou Fall. moom tonton Modou Oustaz Modou Fall lan euh, technicien bi dina ma may temps ma développé parce que lii ma tax a ñëw. dafa ma yitteel man man dama lay may temps nga développé. Oustaz Modou Fall dafa dugg ci loo xam ne catholique. bu dee jullit du ko euh, du ko ñaanal gaa waaye lim ci man vidéo bi dëgg seetaan ma ko woon ñëwoon naa fi sama vidéo bi passé nii nan waxante dëgg yàlla li mu wax leer na. catholique su dee jullit du taxaw ci bàmmeeram di fa jàng ay lixlaas parce que dañu ne xul wallaahu axad allahu samad yàlla jurul kenn kenn juru ko mhm. catholique yi ñoom nee nañu Jésus doomu yàlla la kon yow waroo taxaw ci bàmmeelam dafa jàng alxuraan lixlaas mais su dul loolu catholique bu dee nga bokk ak moom lu ne nga naan doo fa teew doo sax jaale ji kër gi sax bu fa jaar te ñun catholique yi ñun ñu ñu nag yi jullit yi yàlla dafa man damaa gëj a nafar alxuraan su fekkee ni ci internet yi maa ngi koy nafar mais gisaguma ko am na fu yàlla waxee julliti ni leen nasaraani catholique yi ñooy seen partenaire les chrétiens ce sont les partenaires des yàlla dafa avertir euh, musulmans yi ni leen catholique yi ñoo gën a nooy ci yéen mais mu ni leen bu leen mësalandoog Euh, juif yi mhm. ay warkat la ñuy doon ci yéen alxuraan mi ngi ci alxuraan dinaa ko recherché beneen émission ma wax leen ko fi catholique yi ñu catholique yi lebal nañu ñun jullit bor bu ñu fayagul mhm. catholique yi bi ñu dàkkee jullit yi euh, euh, najashi bi Éthiopie fa la ñu daw làqu ci buur bi leen fat catholique la woon tey jullit bu catholique bu amul fu mu tëdd catholique bu amul fu mu tëdd jullit a ko war a fat parce que mhm. fayaguñu bor boobu catholique yi ñooy suñuy mbokk ci lépp donte am na benn sew-sew bu nu séparé sew-sew boobu dañ ko xam gérer ko mais te moom li tax ma ne xamul dara mm-hmm. gis nga verset bi mu jàng verset bi mi ngi nekk taw Tawba verset 84 84e verset te soo dee tafsir ci alxuraan da ngay xam nuzulu aaya yi aaye alxuraan da ngay xam kañ la wàcc ak lu tax mu wàcc ak fu mu wàccee mm. te ci lan la wàcc aaya bi mu jàng catholique yi taxul woon mu wàcc de. gis nga ci la bataille de tot tot tot tot kii quoi tot tot tot taw buub bi bi yonent bi gàdd gàddaayee am na benn xare bu mu doon def contre les juifs. Mhm. dañu dem bay war a génn naafeq yi bon euh, naafeq bu mag bi muy Abdullahi euh, Ibn Ubay al saloon moo leen jiite woon. Mhm. danoo dem ba war a génn mu yàq xolu jullit yi ba am ci ñoom douze yu ci désister ne dematuñu douze yooyu ci aaya bi yàlla wàcc ni su ngeen ma jégalu woon soixante dix fois sax duma leen jégal. Mhm. mooy quatre vingt deuxième aaya bi ci quatre vingt quatrième aaya bi la yàlla wax ni ñooñu suñu deewee sax bu leen taxaw ci seen bàmmeel yi di leen euh, ñaanal. fekk na bi Abdullahi ibnu Ubayda yonent bi da ko bëggoon jullee Seydina Omar ni ko man du ma ca bokk julleewuma ko werante am ci alxuraan wàcc yàlla ni leen yéef naafeq yooyu bu kenn taxaw sax ci seen bàmmeel yi di leen jullee naafeq yee taxoon catholique yi dafa taxoon ñuy wax hmm. beneen aaya bi ci taw ba léegi verset cent treize hmm. li tax mu wàcc mooy bi ab bi Abu Taalib génnee àdduna moo yar yonent bi di nga dégg histoire boobu bi moo ko yar mm-hmm. bi mu génnee àdduna yonent bi da ko doon ñaanal mm-hmm. yàlla wàcc aaye ni ñaanal ku dul jullit donte sa waajur la sax bu ko def mm-hmm. mais kooku dafa weddi yàlla euh, mooy mooy baayam dafa ni moom euh, diine yi maamam la topp kii mais d'accord nañu ni catholique doo taxaw ci bàmmeelam di fa ñaan ak mais di nga ko gunge di nga ko def euh, humanité humanisme quoi lu mel noonu gis nga maa ngi dem euh, ba sama euh, imam euh, Thiès c' est le mm-hmm. président des imams de Thiès mooy Cheikh Ahmed Tidiane jiite. moo jiite imaamu Thiès yëpp. moom mooy le président des imams dem naa ba interpeller ko pour que mais dafa dem en Arabie Saoudite bàyyi naa fa message mais tontooguma moom dinaa ànd ak moom topp ci pour que ñu xool diine ji alxuraan bi nu ñu koy saytoo ba képp ko taree alxuraan. Mm-hmm. kese doyul pour ngay wax ci alxuraan. alxuraan il faut être un docteur ki may wax ni Cheikh Ahmed Tidiane jiite bàyyam mooy El u Ousseynou jiite moo doon représentant wu sëñ Mansour Thiès xam nga sëñ Mansour suñu day wax daara ji moo tax ñuy wax daara ji. Cheikh Ahmed Tidiane jiite dafa maîtriser alxuraanu mag ñi fii dem ca naar yi jàng fa maîtriser ko kooku kooku na ko jël jox ko commission sax nationale buy wax ci alxuraan. Mhm. loolu daal métti woon na ma te waa TFM tooñ nañu lool. suñu mbokk jullit yi suñu mbokk catholique yi suñuy mbokk lan de tey yow dëj bu tooy nit ñaa ngi jooy ngay wax lu mel noonu kii kii dafa amul benn humanité quoi te ñun jullit yi métti nañu ah man métti nañu de te li may wax nii na ko jullit yi xam bu baax étudier waat kaa bi beneen bi mhm. muy la euh, gars bi porté combat de Ousmane ko Tahirou Tahirou Sarr ah. Tahirou Sarr franchement xaw ma intellectuel la xaw ma du intellectuel mais moom franchement dugg na ci loo xam ni Euh, subtilité e les Guinéens nationale bi muy wax te et puis man saa bu saa bu fekkee dafay def politique na ko defee autrement te mu bàyyi la nom de Ousmane Sonko bi muy jël ci discours am wax la wax ci Ousmane Sonko ba attirer sa attention muy dawal discours am pour porter benn électorat moom xam na ni dina am benn électorat bu ko fi fidèle te du bari mooy les purs nationalistes sénégalais la bariwuñu duñu mat sax 2 pour cent ñooñu ñooñu la bëgg a récupérer mais na def discours te bu mu ci boole Sonko parce que Ousmane Sonko il a un destin. continentale. ah euh, gis nga guinéen yi muy attaqué nii mais moom dafa xamul li xew. Macky Sall may na guinéen yi en 2007 Abdoulaye Wade moo ko mayloo guinéen yi en 2007 plus de 4 millions de guinéens euh, ñu ngi au Sénégal genn wàll gi yëpp 2007 lan am carte d'identité te dañuy nar ba bokk ci vote bi. soo leen dee menacé naan ay Sonko nii suñu kii ba ba ñëpp foog ni su saabu Ousmane Sonko ñëwee Guinéen yëpp génn ci réew mi ba di ko te man am na benn Guinéen bu ma bokkal oto wallahi lazi la ilaha illa huwa billahi wala Guinéen la làkk nañu gin làkk nañu seen euh, mbiimi yooyu ba wàcc te làkkuñu wolof bi ma xoolee portable ndaw si fu kii Ousmane Sonko fa foto Ousmane Sonko. laa gis mu ne mu ne ci gannaaw portable ndaw si. parce que moom ak guinéen yi ñoom ak ñoom ak Ousmane Sonko ñoo bokk même idéologie diine ju sell la ñuy dund. guinéen yi ñoo ñu may ñun coupe du monde. Sénégal am na coupe du monde remporté na remporté na coupe du monde benn guinéen moo ñu ko may muy euh, Mouhamadou Mout. Euh, ok Moutaba yaayam guinéen la papam guinéen la ñu ñuy dugal ci ay. débat yu yu ñàkk fayda yooyu dinu indil ay noonoo te et moom sax moom Tahirou dafa xamul xew dafa xamul ni. Mhm. fii ku naan ndox Sénégal ku fi naan Lac de Guiers ndox mi ngay naan Guinée la tawee rogalaat ba ñëw ci Lac de Guiers le fleuve Sénégal la l'OMVS. la Guinée c'est le château d'eau de l'Afrique. ñu bëgg ko génne ci jeu bi. te et puis ñun on a du gaz. Ouais. Euh, la Guinée a du fer. Mhm. sunu gaz bi mënula dem transformer le fer de la Guinée la bi Boubacar Camara doon wax naan les routes de l'acier bi ñuy wax comme les comme la Chine ni mu doon waxee la route la route de la soie. Hmm? Euh, euh, mais mais sincèrement euh, euh, on dit le soir hein, la soir on dit le soir man damaa gëj a jàng tubaab ba soxlaatuma sax xam la lëg laa ay langue boo xam ni ay détails lë laa sonal nit ñi mhm. nan nanu jàngi anglais ak arabe bàyyi langue francaise bi amul benn njëriñ te franchement moom franchement Tahirou Sarr n'a rien compris Tahirou Sarr gis nga ñun intégration africaine bi nga xam ni le Sénégal doit jouer ça mhm. gis nga les chinois soo demee ba Kenya. ils ouais. ont construit chemin de fer de mille cinq cent kilomètres. à écan à grand écartement dernière génération mu relier ñetti dëkk en Afrique de l'Ouest mhm. ñun fii on a notre port à conteneur de Ndayane la le plus grand de l'Afrique de l'Ouest saa bu nu amul euh, euh, pays yu nu desservir comme le Mali la Guinée Burkina Niger mhm. suñ ko amulee port de Ndayane bi lu muy jëriñ te yow yaa ngi naan nationalisme di bëgg a vivre en autarcie lu muy jariñ ce qu'il dit na ko xalaat quoi amul benn njëriñ ñun danoo toll ci te et puis les yi muy défendre na leen yedd jeunes sénégalais yi ñoo bëggul a liggéey mais xale da nangoo départ ci suuf. boobu esprit xale yi am xëy rek tekki moo tax ñuy dugg ci gaal yi bëgg dem Espagne xëy rek tabax kër dawal oto looloo leen di rey xale yi dañuy wax ak ñoom ni leen Guinéen yi li ñu li ñuy jaay seen. kopp kafe yu ndaw yi ak di siire ak di raxasi oto xale noonu lay def di rayante ba jóg ci kaw gina yeey suñu leen dàqee ci réew mi man fi may nekk ci àll bi nii euh, damay génn un peu ci biir intérieur bi mais pour nga am xale bu la entreteniral sa kaafu ganaar sax ramasel la ay nen tool yi benn xale nangootul def liggéey yooyu maçonnerie journaliers yi dix mille francs la ñuy nekk di fayeeku xale sénégalais yaa ngi toog ku leen liggéey loo ñu bañ jakarta rek la ñu bëgg lu yomb xëy suba rek la benn mille francs ndekkee ko ngoon nga reer nga gaare sa moto mais nanu sensibiliser jeunes yi moo tax moo gën ñuy nekk di attaquer ces étrangers la ces étrangers font partie du Sénégal moom Tahirou sar dafa dafa jàngul l'anthropologie tu sais que dëkk yu bees yi dëkk yi la dana jege géej moo la dana récent Mhm. le Sénégal fait partie de l'empire du Mali bi mu éclaté au douzième siècle moom la empire du Mali toj émigration yi ñëw vers euh, les pays vers l'Atlantique mhm. ñun ñu ñëpp Guinée lañ jógee ki Malek yooyu euh, dans l'empire du Mali bu njëkkoon bi dëkk yu mujj le Sénégal moo mujjee juddu le Sénégal Guinée ak Mali ko jiitu ñu bëgg xëy rek bëgg foog nii le Sénégal mooy le le euh, nombre du monde la c'est pas ça man daal euh, ni muy dawee ci kaw étranger yi di ko porte ci noonu Ousmane Sonko. les leaders de Pastef la intellectuel de Pastef yi nanu génn démonter loolu parce que ñi ngi koy yàqalan ah. euh, ñi ngi koy wutal ay noon yu mu amul oh, loolu daal yittaloon na ma trop franchement te et puis beneen mujj bi l'OMVS ñoom xamuñu ne intégration Sénégal gu ndaw gi man am na benn waay joo xam ni euh, non du sax benn benn benn agro businessman bay na trois mille bay na trois mille hectares ceeb ci vallée bi est-ce que xam nga ne récolté wul un kilo de riz trois mille hectares xam nga nu mu bëggoon def euh, ceeb bi taal mu tàkk mu dem xam nga lu tax parce que récolté wu ci dara ba gars yi récolté ñax mi di ko def ay bal ñoo ko ko ñaan ñuy waxtaan ni mu ni ma mu ni ma ñax mi may jaay de benn italien moo ko moom. dafa ñëw bay mais récolté wul dara ma ni ko lu tax mu ni ma picc yi lekk ceeb bi Mauritanie la ñuy fanaani xëy suba ñëw ci tool bi lekk ceeb bi guddi ñu dem Mauritanie léegi yow soo amul ak euh, Mauritaniens yi benn bon voisinage. picc yooyu noo leen di écraser. no mais mais Tahirou il n'a rien compris franchement. Euh, bëggoon naa daal géostratégie dafa am géopolitique am géoéconomie am euh, nous sommes dans un grand ensemble fi mu toll nii. Mhm. danoo war a jëm vers une unité africaine te loolu la Ousmane Sonko di dox. c'est un leader africain d'ailleurs sax deg nañu def nañu benn kii boo xam ne kii benn kii forme boo xam ne tous les africains yi s'y identifient ñu bëgg limale ñu ñu bëgg a réew mi ci pantre Tahirou Sarr daal je l'interpelle daal je l'aime man dama ko daan déglu mais discours am yooyu daal ça m'a trop gêné soo gisee ma dagg paas ñëw ba fii ñett ma tax a ñëw. muy ban ak ban. wut euh, permis de visite euh, pour euh, Cheikh Omar Diagne. xaw ko xamuma mais combat dama koy porter injustice la ñuy bañ et on va le porter. pour qu'il soit candidat comme tout le monde beneen bi Oustaz Modou Fall xamul dara. baqara ba xale yu ndaw yaa ngi koy tari bëgg a jël sa micro bi di. di nekk nii dafa juum foofu rek. juumul xamuñu dara nanu dem jàngi moo gën ñuy daw di wuti buzz ci internet bi fu ne dem wuti arxuraan kenn du ko dóore. jàpp mel ni mel ni yow maîtrise nga te yow déglu ma tafsiru na Kasir bi may jàng man xoolal benn benn aaya rek eh, dinañ ko tafsir ci dix benn aaya. dix pages di nga ko jàng pour xam lu te te li ñu wax ci tafsir bi addis yeeg fi mu wàcc ak li ci boroom xam-xam yépp wax tafsir bi dix livres la. liiraguma sax ñett yi. te dix la dese na ma sept tafsir ibnu kasir. mënuma ko mënuma ko jàng ci ñaari at ak ñetti at maa ngi koy jàng pareeguma. dëgg la euh, loolu la quoi nanu dem jàngi maîtriser te ñu bàyyi kilifa yi ko maîtriser am na ay docteurs yu ko mën a te réew mi nanu organiser wu ci loolu te bàyyi képp ko jóg rek wax ci diine ji di nekk di euh, yàq réew mi. Euh, cohésion sociale bi du am ni avec nos parents chrétiens la loolu la fi yonent bi bàyyi julliti jox na leen jàkkaam ñu def fa mees Seydina amari ñëw na ba Jérusalem fekk fa fekk fa l'église julli jumaa jot mu julli ci biti ni bëggumaa julli ci biir jàkka ji su ci biir église bi su ma fa jullee képp ku ñëwati église boo fekk da nga koy nar dindi def ko ay juma loolu lay bañ wasalaamun taba alal huda maa ngi remercier ñëpp di ñaanal réew mi njub Euh, imaan islam ixsaan yal na ko yàlla dafa réew mi te Cheikh euh, te Seydi Hajj Malick yàlla nañ ko yàlla fayal